Boulen faté abonné si c'est une chaîne YouTube. Samsu TV, j'ai un peu aduna. Et activez la cloche de notification. Bobé, j'ai une chaîne si c'est écran. Samsu TV, moi je suis une très. Samsu TV, moi je suis une très. Samsung TV, mașintele de reîncățeta Samsung TV, mașintele Samsung TV, mașintele de reîncățeta Samsung TV, mașintele de reîncățeta Samsung TV, mașintele Samsu, Samsu, Samsu, TV TV, aljana ay waay di ko bëgge waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bëgge ba aljana ay ba aljana waa Shamsu TV la ñuy bëgge ba aljana di ko bëgge waay La. la ni loxo la ilaha illa la ilaha illa la la ilaha illa la رسول الله لا لا لا لا لا لا يا ربي لا إله إلا لا لا إله إلا قاعد دفلي لخير لا إله إلا الله يا رسول الله وسلم لا إله إلا محمد بن رسول نبي لا إله وخلين سمجل الله لا إله إلا way ku ci defini yow na nga siyaare yónneen bi la ilaha illallah aja ya rasulallah la ilaha illallah la ilaha illallah wax leen sama gerte seen kër waaye sama gerte la ilaha waaye ku ci def nii yàlla na nga siyaare yoon na na tv jirgi magan galle gere madina la de la ilaha illa rasul la ilaha wa sama geserge waje madina la ilaha way ko ñu def ni yal na nga siyaare yonnana tebi la ilaha geer gi magan galle gere madina la ilaha وسلم waxale sama gerte seen gerte waaye tamit dinaa lay la waaye ku di def nii yàlla na yoon na na tiibi lay lay la gi ma gën gën leen géej ma dinaa lay la la Gine gelat. Yeah! la la la lan ko ñeme lay lay ja soona ci ne baala ilaaha madina ya rasulullah sayi sanga bacca madina ya rasul allah sanga bacca madina ya rasul allah sanga bacca madina ya rasul jene bay li ñu doy sanga bacca madina yone la ya rasul jene bay li ñu doy sanga bacca madina ya rasul jene bay li ñu doy sanga bacca madina ya rasul allah sanga bacca madina ku si bëgg ti jene ba sanga bacca madina rasulillahi sanga bace madina ya rasulillahi sanga bace madina mam ambaringo ne sanga bace madina borom samba sajo sanga bace madina borom samba sajo sanga bace madina mamu serigne abdu sanga bace madina mamu serigne abdu sanga bace madina ya rasulullah ay ca bëgg ko doy na baaba ray na ya xulela ilaa ilaa soppey amare ndax yéen waa télé yi ñan ñooy soppey amare ndax waa télé yi amare ndax gaa yi ñan ñooy soppey amare ndax go cene loxo yi yéen waa soppey amare ndax cene gaa yi yéen waa soppey amare ngoone cene ba cene ba xanaatu ngeen laay jaa nga kene ba xanaa tu ngeen la de. bëggati cene ba xanaa ngeen waxutu laay bay cene ba xanaa ngeen newul laay wax leen ni xarana bi jama xarana saawe jaamu njay yoon seen maama xeex samba saaja maamu sëñ abdu fi la rawee gaañi kenn dabu ko adana aca dikal waaji xanaa ko gëm amari ngoone laay mu jaral jogol taxaw magal amari ngoone mu jaral loxoy ca kaw magal amari ngoone aja sëñ abdu mu maam amari ngoone billaay sëñ abdu mu maam amari ngoone mu jaral loxo ca kaw magal amari ngoone wax leen xare bi jam xare na jam mo ñay ñaare seen maama samba ay maamu sëñ abdu fi la kenn dabu ad aja dikal kaay waaji xanaa ko amari ngoone billaay sëñ Moori mu maam Amar Ngoone billaay sëñ Moori la mag ñi wóoloo billaay sëñ ñi Moori la ñi wóoloo billaay borom baa naan ñi wóoloo moori borom baa naan la mag i moori borom baa naan la moori borom baa naan la mag billaay waaje beeñu maam amari ngoone ku mu jaral loxoy ca kaw magal amari ngoone wax leen xare na bijam xare na saawe yoon seen maama xeex samba saaja maami soññi moori fi la kenn dabu jaajëkal waaje xanaa ko gëm Amari Ngoone billaay soldaar yi yu maam Amari Ngoone bu mu jaral loxo yi ca kaw Ngoone Muhammadu Rasulullah alayhi wa sallam def ni ñu magal ya Muhammadu Rasulullah bu leen fàtte abonné ci seen seen YouTube Samsung TV jant bi leeral àdduna te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran Shamsul huda ahmad afaqiya TV, huda TV, Shamsu TV mooy suñu télé Samsung TV, masin tele, dele ko cetak. TV, masin tele. Samsung TV, masin tele, dele Samsung TV, masin tele, dele ko cetak. TV, masin tele. Samsu, Samsung Samsu, Samsu TV. Samsu TV. hay di ko bégee waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana waa di ko bégee waay